bàyyi ma rek ma nelaw taluma ko génn na ci fàtte ne ne xoolal 18 heures waxoon na la may ma baax. bëgg may naa ko xoolal. <laughs> bëgg naa bëgg ñëw si si euh, si point yoo xam ni yitteel na parce que waxtaan bi neex na trop mais yooyu am na solo. parce que da wax euh, ci ñu fi nekk nañ leen jàppale euh, te réew mi dafa soxla rupture boobu mu am ay nomination yu yu yu am ci conseil des ministres bu mujj bi coow jóg ñu commencé di wax ministère. Euh, du commerce ak euh, fu mel ni ministère des affaires étrangères nga xamante ne euh, doomam bu jigéen la ñu def la ñu dénk ndomba tànk coow li jóg nit ñi naan la ñu woote ci ne foofu la ñuy doxee gisewuñu ñu jëfee noonu ndax mën nañu dugal lii nii ci case boobu beneen bi mooy da nga wax lu am solo sànq ci président Macky Sall da nga ne APR moo ko moom. moo ko moom amul sax laam laam waaw moo ko moom dafa am yeneen parti yu mag yu fi nekk. Euh, AFP euh, parti socialiste et tout suñu parti yi lan moo tax ñu am problème ci ñu mën a wax ci naka la ñuy def renouvellement au niveau euh, ci bopp bi wax ma sax yeneen instance mais bopp bi li tax loolu nekk jafe-jafe ci ci réew waaw léegi ci première question bi mooy li xew wax kenn du ko yërëm dañ koy ñu wala ñu mewuñ ko <laughs> wax ji wax ji li réew mi tey mooy ñaar lañuy tudd Yacine Fall ministre des affaires étrangères ñu ne doomam nekk na directeur général ñii ne jëkkëram sax mon grand frère Jacques Habib Sy que je au passage ñu ne nekk na conseiller Ousmane Sonko ñenn ñi weddi nañ ko ni du dëgg loolu nekkul. Hmm. mais li wér moom moo nekk na ministre des affaires étrangères doomam nekk na directeur général. beneen bi. Serigne Gueye Diop ñu ne c'est purement familial cabinet très bien. ma nangul ko ñu ko wax jeune ne suis pas leur avocat défenseur dara beesu fi <laughs> xoolal man j'ai un immense xoolal benn admiration bu mag ci Léopold Senghor dama judd rek dans les années soixante fin soixante début soixante dix gis ko mu nekk wëlëre sama baay seex koog baay bi seex koog ndey ji loo xam ne sañu ma ko wax fii ci télévision ma admiré ko ci dimension intellectuelle am Senghor ndeyam amoon na ñeenti wujj hmm. baayam était riche commerçant ndeyam amoon na ñeenti wujj wujj yooyu jur nañ ay doom doom yooyu ñu am ñu nekk ay frère Léopold Sédar sengoor Senghor tànn na Adrien Senghor doomu frère am la tout puissant ministre d'état ministre de l'équipement ñi ëpp koon doole ci nguuru Senghor du benn hmm. Basile Senghor c'est la famille Senghor nekk na procureur la République à Thiès 17 décembre bi ñuy waxtaane yooyu jamono yi fekk na ko fa moo ma wax ancien ministre de la justice bañ ma affecté Thiès Senghor moo ma ne soo demee naa ñëw seet si yow baay bi la jur ndax c'est son compagnon de lutte taalal ko samay loxo waxtaan ak moom di wéy lu bari ci ay xalaatam yi mooy jox y en a d'autres qui étaient dans la diplomatie Fra Jean Collin doomam François xoolal Jean Collin takk na jarbaatu Senghor Abdoulaye Diack mi remplacé Abdoulaye Fofana à l'information en 68 c'était Moustapha Niasse qui était directeur de l'information moom ma gën a xam sama kër baay te mi ngi fii ci fan gi dama bàyyi ma fen xoolal takkoon na jarbaatu Senghor moo jur Colette Diack bi mu tuddee Colette Senghor et j'en passe mënoon naa continuer amu ci bu mës a def nag te compétence talu ko ndax Léopold xoolal du fal ko xam ne amul compétence qui a succédé à Senghor Diouf Diouf ku mu bokkal ndey ak baay Djibi Diouf Maodo Badara était dans la diplomatie au consulat à Paris ak Maguette Maguette Diouf a été son ministre Diouf musu ko bëgg a def c'est Habib Thiam qui lui a forcé la mais il lui a dit que mais Maguette Diouf brillant informaticien l'un des meilleurs cadres sa génération c'est pas parce que yéen a bokk ndey ak baay que warut a nekk ministère bi war na ko nekk Habib Thiam était un brillant cadre. góor pire non mais may rek méggale. Hmm. Abdoulaye Wade dem na. brillant intellectuel Abdoulaye Wade c'est la flamboyance Abdoulaye Wade un être décomplexé Wade lu mu def mën nga ko koo baal parce que c'est un être décomplexé Wade c'est pas la prodiga c'est la c'est pas la générosité c'est la prodigalité. Wade boo ko jox léegi milliard tusbaar tàkkusaan distribué na ko jeexal na <laughs> bi mu ñëwee lu ci bari loo xam ne yaakaar nañ ne c'était pas possible sous Diouf def na ko fi autoroute bii c'est Abdoulaye Wade bien des choses c'est Abdoulaye Wade faalewul tubaab faalewul nit ku ñuul ñëpp la bokk yemale dédoublement dans le personnage bu ko neexee nekk intellectuel pur et dur ah. tubaab bu ko neexee nekk sa Serigne Touba di sukkal di karaamal Serigne Saliou Mbacké doomam Karim Wade jiite na fi ANOCI jóge fi nekk ministre tout puissant ñu tudd ko ministre du ciel et de la terre ah Macky Sall <laughs> ñëw na jël rakkam journaliste na comme ñun qui a un immense respect pour Mamadou sa personne Aliou Sall je le dis et je le répète ba mu génnee wax man bokk naa ci ñi mu woo dama nekk nit ku transparent xam nga Pape Ousmane. Hmm. j'ai immense affection considération et respect pour les deux qui dirigent ce pays là Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko waaye l'esprit libre retiens une chose de ton grand frère tout le monde me parle et je prends tout le monde parce que je veux être un esprit libre. d'accord boo mu defee déclaration bokk naa ci ñi mu woo ma wax la ma ci xalaat waaye trajectoire wu Macky Sall bi mu ne Macky Sall. fukki at ak ñaar jiite na ko réew ñoo bokk ndey ak baay ñetti yoon laa ko gis ñetteel bi mooy bi Macky Sall ne du nekk candidat temps bi mu diriger CDC diir bu gàtt ñu jëlee ko fa parce que boobu adversaire am dañ ne Macky ki kii tache noire la boo ko fi jëlul dinañ la ko xeexee mu ñàkk ko géejawaay bi mu ñàkk c'est un our ourdi contre sa personne moo ko tax a ñàkk j'ai ko de respect et d'affection pour mon petit frère Ahmed Aïdara qui m'aime bien moom ci biir kër Macky Sall lañ ko xeexee gis nga li muy génne nii te mu génne ko te mu indi tsunami dans un pays dans ce dafa junj rek lim loog yëpp génneeku ko. amaa la wax loolu parce que li ko metti bari na à tort à raison mais lañ ko joxoon jàpp naa ne am na compétence bi damay dikkaat ci compétence rek kon tey Bassirou Diomaye Faye su falee koo xam ne bokkul ak moom day ak bàyyi de santul Faye comme moom de Ousmane Sonko falul frère falul sœur. ñoo xam ne dañu bokk ci entourage jox leen cër ñu jël seenu njaboot su ko compétence lale nangul naa leen ko parce que du fi lu bees damay def rappel historique rek pour dikk ci yooyu parce que gis nga lépp looy jox nit Adam su amee compétence nekk ministre ànd naa ci sama rakk la sama cër la su amee compétence su nekk directeur général ànd naa ci man kay li ma mënul d'accord mooy nomination boo xam ne compétence tal ko mi ngi gis ba amee compétence dont sax mu bokk ak ndey ak baay yow gêné wu parce que mbir yi aussi ñëpp xaj nañ ci gis nga pouvoir générosité la àdduna yàggul neexul li muy yàggadi yàggadi nit da ko gën a yàggadi nit li muy yàggadi yàggadi mën moo ko gën a yàggadi wërsëg soo ko gàttandoo mu dëpp daraja soo ko jëndee mu xàcc ci rappel Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye te mbokk mu baax ma doomu Seydi Aj Malick si borom cër bu mag ba sama baay bu baax ba sëriñ Abdoul Aziz si sama abib si déggee yow xam ne billaay sama doomu baay la moo ma jàngal ne ma Abdoulaye Fofana Seck maslaa ba ñu maasee yàlla teg ko kenn man bokk naa ci ñi mu jéggi sëriñ Abdoul Aziz si mu sell ma billahi Mansour doomam mooy seede bi mu dénk ma la ma dénk dam lay wax ma ne xoolal man nitu yàlla fu mu nekk am naa cawarte dem fekki ko dem ziyaare ko suñu mbokk taal taal yi fa nekk Cheikh Umar Foutiou Taal may gi fokk natt weesu na ko ku prédire di ko Serigne Touba kooku ponkal la xoolal suñu waajur bu baax ba Cheikh Ibrahima Niass cër bi fokk natt weesu na gis nga Sénégal gars yi bu ñu fayee réew mi. Hmm. yàlla wan na leen boppam le 24. gis nga jeu politique bi moomuñu réew mi les acteurs politiques moomuñu réew mi gis nga c'est une minorité et je dis. La médiocrité qui a fait kidnapping de l'espace et de l'espace publique les hommes de qualité ñooñu lay waxal ils doivent se mettre debout pour le déverrouiller mais nag ngor ak fit su dul loolu bokkatoo gis nga Sénégal boo ragalee bokkatoo. parti politique boo ragalee bokkatoo parce que gis nga nit bu la gënul xamula